ku ci nekk ci ñun. ubbi téléphone nu attel ku ñëw su buntu kër teg fa lu mu fa rek. Hmm. dang nga ciy kaas mu jógee fa mais doo lijjanti fa mu jëm. soyons justes dans ce qu'on fait soyons justes dans ah. ce qu'on fait parce que moom mii chaque jour mu kaas lu ñu koy ay mbalit yu ñuy yu ñuy këpp sa buntu kër waaw mbalit mu ñuy tuur sama buntu kër waaw c'est la même chose bu ko tuuru foofu fan la ko retour nga ne bu ko tuuru sa buntu kër fan la ko retour nu wutal ko fu mu ko tuur c'est la même chose waaw c'est la même chose waaw mooy li ma wax jóguma ci loolu loolu occupation sur la voie publique c'est anormal s'il vous plaît mais c'est anormal d'accord nan leen fa jëlee je suis entièrement d'accord waaye léegi doon leen fay jëlee nag léegi dootuñu lekk dootuñu naan dootuñu def dara loolu de laa laaj. d'accord loolu loolu de laa laaj. loolu yëpp boo kiiwee rek dinañ ci waxtaan léegi. 88 628 89 90 defuma dara 88 628 da ngeen ma bëgg a collé motif. 00 221 da ngeen ma bëgg a collé motif. papa tey damaa sonn. Ah, damaa sonn waaw soo réeree ne damaa sonn maa ngi ñëwaat ci yow. dóor rek nii maa ngi ñëwaat ci yow maa ngi la ko ñaan. background laay waxee ak ñoom. yow yaay gën a dégg papa dimbale ma rek maa ngi la ko ñaan nañ jël téléphone bi 88 628. 88 90 allo salaamaaleykum. c'est anormal faut leen dugal allo. allo bonsoir. je pense que vous n'êtes pas si méchant que nga arrêté. nit ki dootul lekk 88 628 89 90. ah 88 628 28 ki. te dootul dox lu ma ci ci téléspectateur yi s'il vous plaît. <laughs> man bañuma c'est anormal. nan nga leen def da nga leen di arrêté ñu toog kenn dootul lekk. s'il vous plaît non s'il vous plaît. Ah, bu yow may wax. s'il vous plaît c'est parce que fi ma taxaw dafa baax. ayca euh, su ki jox ma ko please. dafa baax. allo. parce que dafa mel ni amul retour ñun amuñu retour fii aussi on on l'entend pas très bien. allo fi ma taxaw daa baax de. 88 628 89 90 88 628 28 28.

dinañ ñëwaat ci euh, kaawu euh, marchand ambulant yi incha allah <laughs> léegi nii ñu ne relation yi sénégalais yi am ak administration. loolu looloo gën de relation yi sénégalais yi am waaye fii soo fi duggee daanu fii ku fi dugg daanu. te c'est c'est genre de problème qu'on a <laughs> tout le temps xam nga doon nañu wax ci émission passée que ci yi. <laughs> sénégalais yi dañuy ñëw illégalement. di mhm. toog ci yenn partie hôpitaux yoo xam ne du pour toog du pour togg du pour waxtaan du pour foo. du pour rire parce que ceux qui sont dans les hôpitaux sont des gens malades qui ont besoin de repos qui ont qui ont aussi besoin euh, ñu leen di faj mais dans la quiétude Sénégal ñun dañoo jikkowoo règle ci boppam moom lañ bëggul te dañu nekk ay nitu sentiment ñun ñëpp on a des frères ou on a des tantes on a am nañ mbokk boo xam ne ci marchand ambulant yi lay liggéey dañu neex ñu jëlee marchand ambulant yi fenn ñu nar yàq seen liggéey ba dañu am lu ñu dépensé dëgg la mais ñun ñëpp xam nañ Sandaga wala feneen ak feneen nu mu doon demee c'est-à-dire da ngay ñëw pour nga am foo taxaw sax c'est un problème et du sécurité sax pour ñoom il faut qu'on le dise mm-hmm. léegi nag état bi moom moo war a def de telle sorte mu am site boo xam ne du leen fay recaser mm-hmm. tabaxal leen ko mu nekk ci ay conditions bu baax ba pare mu accessible parce que c'est important mm-hmm. parce que da ngay fay mais fay bi na accessible doo yëkkati ay nit teg leen fenn ba pare di leen laaj loo xam ne seeni poche attanu ko c'est-à-dire chaîne la du quelque chose boo xam dañ ko mën a ñëw def du jour du jour au mais aussi il faut que ñun ñuy nangu di tegu ci ay règles bu ñu bëggee dëkk bi changer bu ñu bëggee di fayeeku la ñu war a fayeeku di ko liggéey ca na mu war a na mu war a demee parce que problème boobu la ñu am la personne qu'il faut à la place qu'il faut Sénégal problème boobu la ñu am da ngay gis kenn ku am ay diplôme war a a liggéey li ñu ne ah suñ ko jëlee dañ koy fay ay 800000 ay 900000 ay 1 million donc pourquoi prendre benn pourquoi pas prendre benn Safia boo xam ne avec 200000 elle pourra faire le boulot pas comme l'autre mais au moins li ñuy fay dina tuuti à la fin on devient médiocre sans pour autant s'en rendre compte. mais Safia man de li ma xalaat marchand ambulant dafa war a circuler. Mhm. donc euh, ñuy ay gars yoo xam ne ay jàmbaar lañu. mais je crois que tamit anarchie bi am ci Sénégal moom laa njëkk a sànq amul fenn ci àdduna. parce que je crois chaque fois bu fekkee dañuy xool yërmande wala di xool ndax kii dina mun a def lii wala dina mun a def lii je crois que loolu duñ si mun a jóg lu ñu mun a def mooy organisation organisation mooy lan comme ni ko Safia waxee. ayca ñu jéem ñu jéem leen jël ba xam euh, dina antu benn euh, désolé 88 628 89 90 allo bonsoir. oui. allo. oui salaamaaleykum sëñ bi noo def. maaleykum salaam. waa yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. ayca ñu ngi lay déglu yaa ngi en direct ci émission gis-gis. waaw xam nga li li kii doon wax Benoît sànq. Mhm. waaw ñu ngi lay déglu papa da ngay wàññi bi tuuti rek. aw kooku dem na ñu ngi ciy jégalu ñu ngi tuub bu baax a baax ñu jël keneen boo leen wootee ngeen wàññi télé yi comme sa dégg-dégg bi gën a neex 88 628 89 90 allo allo oui bonsoir allo ayca il faut mu wàññi télé bi il faut mu ngeen ni wàññi tele bi s'il vous plaît sinon décalage bu amee rek euh, surtout ci ñuy woowee extérieur de compliqué salaamaaleykum ayca benn ñu bàyyi la nga continuer le temps que ñuy duggaat. rek Safia si am si réew mhm. man am na ay site boo ma fa naree toog ne ma kaay dëkk foofu. Mhm. marché Castor marché HLM. Mhm. des gens yoo xam ne marché la ñu wax marché dafa am superficie boo xam ne loolooy marché ñuy ñëw ba sa buntu kër. def ko par force ne ñun fii la ñuy toog fii la ñuy jaayee sa pour nga dugal sa oto wala pour sa famille génn wala tu ne peux ñooñu lan lañ leen war a def. dañu leen war a ñëw neexal pour ñu jóg fa wala dañu war a ñëw laamiso non dañ fa war a jóg par force parce que dañuy occuper loo xam ne c'est illégal amul dañ fay daan seen doole nañu bu ñuy daan seen doole nañu dem yem si biir marché bi foofu la ñu mën a jaayee moom laay wax Sénégal masla bi moo fi bari regarde accident yu bari da ngay koo xam ne day ñëw ba si koñ mu jël chaîne am jël li muy jaayee café tànganaa takk ko si potalampe bi yow doo mën a gis sax beneen une voiture peut en cacher doo mën a gis sax oto bi nar a jant il est là-bas cent dix mille boo ko fay jëlee ñu ne non non kii kat fii la tàmm affaire yooyu mais ngir yàlla di sérieux loolu day doxal réew mais je te dis su ma ñëwee jox la sommation moom laa fi wax benn moment que les maires ñu si ëpp ñu seen liggéey parce que le gars tamit bu fa toogee Safia maire yi bu ñu ñëwee suba teel bindal ko benn kayit mu joxe cinq cent mais après day dem casse droit am day ne man dama naan fay pétanque donc j'ai le droit rester ici parce que j'ai le droit de rester parce que mairie bi dama leen daan fay mhm. donc moom la Safia di wax l'organisation si je vois ce qui se passe terminus Liberté 5 et je le dis haut et fort j'ai mal au cœur y a du tout mu doon ay place yoo xam ne référence la war a doon mais les maires son en train de regarder boo leen fan day jëlee tamit ñu ne la non dañ doon fay maire bi ñun tamit duñ fi jóg et c'est leur droit parce que ñu ngi fay donc dëkk bu amul organisation dëkk bu baree masla dëkk bu fekkee ñi nekk si kaw dañ fay nekk pour seen poche parce que ñooñu ñu ngi leen di jox yenn xaalis te ticket yooyu du dem si redevable bi y' a toujours problème. Ah parce que boo leen fay nar a génnee tamit dinañ la ne man samay reçu yëpp a ngi nii dama ko daan fay. je suis parfaitement d' accord pour bu fekkee dañ leen foor a génnee ñu utal leen ay sites yoo xam ne mun nañ leen recaser mais lu illégal loo xam ne yow amoo droit ñëw occuper ko. nga ñëw occuper occuper ko parce que par la force da ko bëgg occuper bu ñu la fay génnee maslaa waru fa ama ah. tu dois piir parce que fii du sa place moom moo ko je pars. non waxuma ñooñu ñooñu wax naa seen wax ba pare dama ñi nga xam ne. par force ñoom dañ fay ñëw taxaw bu ñu gisee ko ko sénégalais day dem ba yóbbu sax habitude am bitim réew. dangay ngay gis Italie. les marchands en sauvette là ñuy dawanteeg ay policiers yooyu. parce que dañ ko tàmmoon fii yóbbu ko ba dëkku jàmbur. te loolu du yoon dëkk dafa war a am règle dëkk dafa war a am fu piéton yi war a aw mais mhm. Sénégal fan la piéton di aw mhm. dites-moi y en a pas amul fooy aw parce que nit yi ak tali bi oto yi ak nit ñi ñoo bokk tali bi et ça pour un pays te loolu dafa nekk si éducation loolu dafa nekk si règlement loolu dafa nekk si doylu mhm. parce que bu fekkee maire yi dañ leen fi teg yéen pour ngeen defar seen quartier wala pour ngeen defar seen gox je crois am na attitude boo leen war a tenir attitude bi mooy lan def leen xaalis bi fi mu war a jaar ñiy jaay ak ñi nekk si quartier bi ñi nga xam ne ñu ngi si dëkk bi di def lu warul mais woo leen. point nag waxtaan leen. point yi nga xam ne pros nit ñi dañ fay aw sofi di dox ñu ngi fa lal ay jën di jaay. ñu ngi fa lal ay ay scooter yi dañ fay yéeg di aw mais on est dans quel pays ce pays ngir yàlla. ban dëkk la ñu nekk ñun Sénégal ñun moom laa wax au début est-ce que ñun xam nañu ndax dañu bëgg avancer wala ñu bëgguñu avancer nga dem sañu plage yi ay Soumbédioune yooyu c'est une honte boo xam ne jeunes yi sax dañuy dee fii parce que lépp lañ fay sànni lépp boo waxee ñu ne la ah dëkku buur la ah, lu ma neex laay def buur a ko moom mais non xoolal li nga mun mënal defal sa dëkk. sànq am na loo xam ne loo am importance ngeen wax je pose une question bu fekkee salaire dafa tuuti moo tax Sénégal bi yëpp di gàpp